les amis et tous les sportifs sénégalais et remercier le peuple sénégalais parce que depuis Bouba Diop génn àdduna ba léegi franchement xol yi bokk nañu te loolu moo si am génération 2002 la famille ñoom aloo ngi ambi ñoom am di. aussi président discours bi mu def. waaw ah, macha ne ak stade bi mu tuddee Pape Bouba. waaw nañ ko parce que mérité na ko hein? mérité na ko. ci lañ juddoo ci man ëpp loolu donc président am na xel ak xalaat ay euh, ñu jox ko loolu loolu moom lañ koy rafet rafetlu tamit euh, seen euh, taxawaay organisation bi ci couverture bi ñun tamit liggéey bi ngeen ci def képp koo xamante ne mi ngi topp mel ni fekkee na parce que ko baax ñoom kër sa ngi nii chef de quartier Mamadou Diallo Ferdinand est là chef de quartier. le maire. le maire. y a Diao y a y a Aliou y a madame madame madame Dou madame Diouf les deux premières dames kenn ki nag yoroo sac portable bi nga ko tafu. sama chéri bi nga ko tafu. <laughs>